أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci seen téere kitaabu tawxid ñuy jël tey xadiis abdullahi ibnu amr ba tey bunt bi mooy alam tara ila allazina yazcumuun annahum aamanu bima unzila ilayk abdullahi ibnu amr nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yuminu ahadukum xata yakun xawaa tabaan lima jitu bihi laa yuminu ahadukum xata yakun hawaahu tabaan lima jitu bihi qaala nawawi xadiisun saxiix yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul dafay sànni dafay bàyyi ay bànneexu bakkanam topp man muhammad li ma indi allahu akbar ndeke ñun jullit ñi duñu mën a nekk jullit lu dul dañuy bàyyi sunuy bànneex bàyyi sunuy bëgg-bëgg bàyyi sunuy aada bàyyi ci ci suñu cosaan bàyyi lépp topp li yonent yàlla muhammad indi xatta yakun hawaahu tabaan li ma jitu bihi kenn ci ñun ndeke mbiram yi du mën a baax lu dul day sànni li mu yoon topp li yonent yàlla muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi ndeke mbir yi du lu ñuy wax kese mbee waaye ay jëf la lu tax ndax mbirum pas-pas la mbirum pas-pas aaya xadis boobu mbokk yi dafa méngoo ak aayab alquran bi yàlla di wax ci suratu nisa aaya 65 yàlla naan fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuka fi ma shajara baynahum yàlla nee na giñ naa ci sa boroom yow muhammad falaa déedéet nanguwuma wa rabbika giñ naa ci sa boroom yow muhammad ñii li ñuy wax du dëgg laa yuminuun du ñu gëm yàlla xataa yu xakkimuka fi ma shajara baynahum yudul yudul yow yaay nekk seen àttekat yow yaay nekk seen juge yow yaay nekk seen tribunal ñuy àttewoo ci yow allahu akbar kon aaya bi dafa dëgëral xadiis bi yàlla nee na lépp lu ngeen def duma ko nangu lu dul dangeen a àttewoo ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam aaya bi tamit ba tey beneen aaya di ko dëgëral ci suratul ahzab aaya 36 yàlla ne wa ma kaana li mu'minin wala mu'mina iza qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara min amrihim wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan baida yàlla nee na warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonent dogal ba pare ñoom ñuy tànn naan wéy mais alors ça va après déedéet iza qada llaha wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim su yàlla dogalee ne lii la lool la amatoo looy tànn neex na da ngay jël metti na da ngay jël waaw bu tàngee da ngay jël bu seddee da ngay jël ndax yow yaa ne ab jullit nga jullit nag yàllaa ko yonent duñ ko traceel ba pare mu ñëw di ci xool lu muy def wala lu muy wax lu muy def wala lu muy bàyyi aaya beneen dafa ñëw di ko dëgëral yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam te suratul qisas aaya cinquante fa in lam yastajibu laka faalam annama yattabi'una ahwaahum suñ la wuyu siwul bàyyi wuñu la ñu nekk ñëw ci li nga ne wuyu si wuñ la yëgal ne dañoo topp seeni bànneexi bakkan allahu akbar fa in lam yastajibu laka yow yenent bi maa la yónni na nga woote képp ku ko dégg lànk ba ñu ñëw na nga yëg ne ay bànneexi bakkanam moo ko teree ñëw lii moom leer na nañ ku bàyyiwul bidaa ñëw ci sunna bàyyiwoo bokkaale ñëw ci tawxiid bàyyiwoo say aaday maam bàyyiwoo sa say cosaan bàyyiwoo say meen bàyyiwoo dara ñëw wuy si yonent bi say bànneex moo la teree ñëw yow ya sa bànneex mooy sa yàlla afara ayta man ittaxada ilaahahu hawaa yow sa bànneexi bakkan ngay jaamu waaye toppatoo yàlla mbokk jullit yi laa yakunu min ahli kamaali l iman alwaajib alladi waadahu llahu ahlahu alayhi bi duxulil janna képp koo xam ne danga bañ a wuyu si yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow de yëgal ne sa sa ngëm matut sa ngëm dafa manqué bokkoo ci ñi yàlla wax ne tabaraka wa taala ñii ñoo ma wuyu si ñii laay dugal aljanna ñii laay muccal ci safara kon ndeke foog ñu bàyyi suñuy bànneexi bakkan bàyyi suñuy bëgg-bëgg nga topp li yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam indi su fekkente ne li nga bëgg dafa ànd ak li yàlla bëgg ak li yonent bi bëgg yow de gañe nga waaye bu fekkee ne yow say bëgg-bëgg dafa wuuteeg bëgg-bëggu yàlla ak bëgg-bëggu yonent nga bàyyi fi li yàlla ak yonent wax yëgal na yow bokkoo ci nitu ngëm yàlla yi lu tax bokkoo ci mooy danga lànk bàyyi say bànneexi bakkan ak say bëgg-bëgg wuy si yàlla ak yonentam kon ixwatal imaan ndeke ngëm du ay waxi kese ngëm dafa war a indi ci nit changement ci lépp daf ciy changé ndax la mu gëm mooy tax mu soppeeku ngëm dafay changé bëgg-bëgg ndax la mu gëm mooy tax bëgg-bëgg yi soppeeku ngëm dafay tax waxi doomu aadama sax melokaanam sax dafay changer ndax la mu gëm dañu amoon benn xale muy jàng ci jardin d'enfants école imam ali radiallahu anhu 24 décembre jot ñu jàngal xale yi waru leen feetu 24 parce que 24 du sunu du du sunu feet ndekk xale bi jël na affaire bi ci xolam ci këram mu dem ñibbi fanaan jour 24 xëy suba Sénégal yëpp di feetu 24 décembre 25 décembre moom xale bi mu sangu ñu solal ko ay yéreem mu gàddu saakam boot ko sàkk dër bi mu boot ko mu génn ndeysaan ñu ubbil ko buntu kër gi mu muy dox jëm école bi mu ubbee buntu kër gi bi yaay ji ubbee buntu kër gi ne ko Ibrahima demal ba ngoon nga ñëw ba wàccee mi di nga ñëw mag ñi ndeke ndeysaan ñi ngi ci kaw immeuble bi ci terrasse bi ci balcon bi taxaw di ko seetaan ak seen papa ñoo ngi toog fajar gi jàkkaarloo bayaal bi comme ci buntu kër gi la génnee romb tuuti rek. waa balcon bi séen ko ak tuutiwaayam ak gàttaayam ak saag saag bi mu boog jëm école mag ñi nag ndeysaan di ko tooñ comme ñoom ñoo ngi feetu bokkul ak ñoom fu ñuy jàngee ñoom ñoo ngi feetu moom moo ngi jànge ñu naan ko wuu wuu Ibrahima amuleen feet wuu wuu Ibrahima amuleen feet mu daal di tourné jàkkaarloog ñoom ne leen ñun jullit lañ mu yëkkati loxo yi ci kaw nag ndeysaan banque ñaari loxo yi dóor ko ci asamaan si ne leen ñun jullit lañu laa ilaha illallah ñun jullit lañu papa ji nee na baat boobu bi mu génnee ci dënnu xale bi génn ci gémmiñ gi xale bi ak ni mu ko yuuxoo ak ni mu ko defee ne ñun jullit lañ papa ji nee na tuuti ma ànd ak sées bi daanu ci suuf ak bal ci jóge ci kaw balkoo bi daanu ndax xale bi kàddoom bi kurpeñ la ma dóor ci sama dënn bi nee na sama bët yi taa sama rongoñ tuuru ma jóg ci sées bi ma toog dugg ci sama biir néeg toog génn sama musuwaar di joxe ma yëg ne xale bi am na ngëm ndax jullit dafa war a sànni ay bëgg-bëggam topp li yàlla indi ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi mbokk jullit yi loolu mooy ngëm dafa la war a changer du ay waxi kese ngëm ci lépp lu mu la fekk te du dëgg daf la cee war a jële ci lépp nag nga fexe ba la ngay gëm te muy dëgg du wuuteeg say jëf mu ne fa haadihi sifatu ahlul iman al mutlaq lii mooy melokaanu way gëmi yàlla yi ñi nga xam ne yàlla kese lañ gëm mu ne wa in kaana bi xilaafi zalik bu fekkee dangaa wuuteeg yow li ngay wax say bànneex nga topp ba pare bëgg wéeru ci kaw yonent bi loolu munta nekk aw fi baadi ahwaalihi aw akthariha wala yenn ci melokaan rek nga jël wala li ëpp dangaa coppati fii coppati fii loolu du mun a nekk yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa yéen ñi gëm yàlla dugg leen ci diine ji lépp amul ŋarale afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia da ngeen a bëgg a jël lii bàyyi lii képp koo def yàlla nee na dinaa la toroxal ci àdduna allaaxira nag moo raw kon ndeke ngëm du ay waxi kese ngëm du ay mébét ngëm lu sax ci xol la làmmiñ di ko wax cër yi di ko jëfe looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne njaalookat jamono ji muy ngaaloo ngëmam teggeeku na ko ndax bu gëmoon na yàlla ngi koy gis du njaaloo sàcc jamono ja muy sàcc ngëmam teggeeku na ko ndax bu gëmoon na yàlla ngi koy gis du sàcc loolu moo tax mu ne ngëm moom mooy musal nit ci yooyu nga yëg ne yàllaa ngi lay gis yàllaa ngi ak yow yàlla moo ngi ànd ak yow kon am na yoo xam ne di nga ci rusa di nga ci rusa dugg am na yoo xam ne di nga ko rusa wax képp ko xam ne dangaa nëbb wala nga làqatu wala am ci ndomba tànk boo yaakaar ne mën ngaa def yenn yoo xam ne wuute na ak li yonent bi indi sëg ngëm dafa manqué sa ngëm matut li ngay woote du dëgg foog nga am liberté dàq yooyu yépp libéré sa bopp dese yàllaa ko yonent bu neexee lool la su mettee lool la soo wéree lool la boo feebaree lool la yàlla rekk ak ko yonentam leneen bokkut keneen bokkut fa tahriru raqaba mu'mina mbokk yi aaya yi wone ne mënuñu nekk ay jullit lu dañoo topp yàllaa ko yonent kenn mënu ko jeexal kenn mënu koo lim lii moo doon melokaanu ñu gëm yàlla ñi démb lii moo doon seenub yoon ci lii la salaful umma nekkoon ak ay njiitam ann al iman qawlun wa amalun jëf ngëm wax la ak jëf day yokk day wàññeeku la koy yokk mooy topp yàlla la koy wàññi mooy mooy yàlla lii moo nekk ci téere yàlla lii moo nekk ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla tabaraka wa taala du sànq ngëm ay doomu aadama yoo xam ne yàlla rek lañ gëm yàlla du sànq seenu ngëm wa ma kaana allahu li yudia imaanakum yàlla nekkul kuy fowe seen ngëm di ko sànq déedéet seeni julli ya ngeen defoon sax ca baytul maqdis ndax yàlla kese kese la woon yàlla nee na dinaa ko nangu mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon laaj benn délégation bu Abdullahi ibnu Qays seen ngëm ñoom lan la mu ne atadruna mal iman billahi waxda ndax xam ngeen lan mooy ngëm yàlla kese kese mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mooy gëm yàlla kese seede ne muhammad alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko yónni mu ne lan mooy wane ne dalil buy wane ne ngëm day yokk an al iman yazid mu ne wa yazdaadu allazina amanu imaana fa amma allazina amanu fa zaadathum imaana kon ngëm day yokk ngëm day wàññeeku ngëm la koy yokk mooy jaamu yàlla la koy wàññi mooy mooy yàlla lii mooy aqidatu salaf ñu jiitu woon ne lii mooy seen pas-pas ngëm day yokk day wàññeeku nit koo gis muy góorgóorlu ci jaamu yàlla ngëmam day yokk koo gis muy yaafus ci jaamu yàlla ngëmam day wàññeeku ngi mel ne bëtiri oto rek léeg-léeg nga xëy bëtiri bi palaa oto bi lànk bañ a dem foog ñu puus la yenn saa yi sax bëtiri bi dee foog nga sànni bëtiri bi jëndiwaat bu bees xol noonu la mel boo ci chargé yàlla akub yonent xol ba ne keng boo leen ci génnee xol ba dee yeneen yàlla dëgëral yeneen yàlla def ci ñun dégg ak topp yeneen yàlla jéggal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu